Kaolack jiite itam commission hydraulique et assainissement bu conseil départemental bu Kaolack Babacar maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay nuyu Pierre euh, le grand journaliste comme j'ai l'habitude de le dire et di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu waa Kaolack waa Saloum et waa Sine. waa Bawol et di nuyu aussi sunu waa parti eh, di ko teg ci le président Moustapha Niass muy AFP et di nuyu la classe politique l'opposition comme le pouvoir di wax Sénégal nag benn bopp la kenn du ko xar ñaar nañu ànd di nuyu téléspectateurs yi Walfadjri opposition boobu nga wax euh, si kanam dinañu def meeting fële ca euh, terrain ACAPES ca parcelle Assainies meeting bi finalement préfet euh, autorisé na ko mais tey bu ñu demee ci Sénégal bay naan préfet autorisé na interdit na loolu est-ce que du recul démocratique loo xam ne c'est naturel constitution bi dafa ne rek dangay ngay déclarer rek ñu jël matukaay yi pour encadrer ko. Pierre comme lu ma wax tout mooy que ne Sénégal. Euh, dafa dépasser fi ñuy waxee dañuy autoriser manifestation ou dañuy tere manifestation pourquoi parce que ku xam Sénégal xam histoire politique gu Sénégal mooy lu ñu tere rek am na lu tax ñu tere ko man dama yàgg a ci ay manifestation 23 juin maa ngi fa woon bi ñuy jël bakkanu ndem si yàlla Mamadou Diop place de l'obélisque maa ngi fa woon avec le président Moustapha Niass donc kon du ñun et le président Macky Sall était là du ñun ñooy tere manifestation démocratie Sénégal topp passé na foofu seulement que li ñu war a wax. xam nga lan mooy mosul dellu ginnaaw mu ngi avancé boobu ngay wax. parce que Ablaye Wade dafa autorisé devant les du palais te tey kenn ñemewul taxaw foofu man maa woon devant les de l'Assemblée nationale du palais. mais xam nga réew aussi mais Pierre xam nga xam nga yow Pierre. ay député sax bëggoon nañu def ñu interdire leen ko. xam nga. ne Sénégal gii nii ñi nekk nii dafa am loo xam ne nii xam nga lu ñu war a wax mooy opposition ñoo wa surtout opposition bi nga ne xam ne ay amateur lañ dañu xëy rek nekk ca ñoom lañ war a jàngal ce que c'est que la démocratie ce que la politique parce que tey bul fàtte ne le préfet buy autoriser cette manifestation xam ne seen audio yi fuité na partout ak li ñuy wax le 14 le 15 le 16 mois je pense que bu préfet autoriser seen manifestation moo lay wan ne la la démocratie sénégalaise est légendaire pourquoi mooy euh, tey seen wax yépp moo doon duñu ñu autoriser marche bi di manipuler l'opinion di manipuler xale yi au moment où sax ñoom buy xale yi di génn di joxe seen bakkan ñoom ñu ngi tëj seen doom yi ñu ngi tëj seen soxna yi pour gën a dund parce que il ne cherche qu'à vivre mais bakkan boobu ñuy wax ak le mot bu ñuy utiliser ma rus ci sax man di ci dellu ci plateau télé euh, je pense que ñooñu bu fekkoon loolu la ñuy dund keroog bañ naan leen wàcc leen oto bi waa ji naan il faut le prendre du joxe boppam comme un bébé. Hmm. mais dafa waroon taxaw riposter ba nga xam ne moo bi muy utiliser di ko gëmloo xale yi pour ñu joxe seen bàkkan moom mu commencé ci moom mais du ko def. danañ dellu si waat euh, ci kanam. mais démocratie euh, Sénégal wàllum démocratie boobu. ak euh, recul bi ñu bëri jàpp ni c'est pourquoi on autorise les les les les les les manifestations. waaw <laughs> léegi ñu waxtaan si sa parti AFP. Mhm. AFP lan moo si des jamono ji. AFP mu ngi fii ñu ngi liggéey à la base di wax rek ne parti la boo xam ne buñ seetloo 99 lañ ko créé ne c'est j'ai choisi l'espoir mu nekkoon loo xam ne tey damay wax bu réseau yaakaar ba tas na moom bu réseau espoir boobu dafa tas non mais yaakaar du tas ci ku hmm. gëm 16 <laughs> juin 99 non yaakaar ku am gëm-gëm nous avons choisi l' espoir mais instant bi xam nga da ngay xool ñan ñoo porté woon loolu ci classe politique bi ci classe religieuse bi muy les xalif généraux Euh, le cardinal Hyacinthe Thiandoum yal na yàlla seddal suuf ci kawam et la jeunesse les femmes yaakaar googu ba léegi tey moo fi nekk. yàqeekuwul non yaakaar ku gëm. ku am conviction pour man sa yaakaar du mos a parce que parti bi nag AFP nag yàlla daf ko may mu am des militants yoo xam ne nii ce sont des militants convaincus pas des militants alimentaires. kon chaque élection seen électorat day gën a ndërmeelu. kañ la ndërmeelu. Hmm? troisième lañ mos jël bi ñuy participer ba léegi. ku fi falu rek AFP def na ci loxoom pour nga falu. waaw da nga ne langaamu rek. gars yi da nga ne langaamu hmm? dañuy xam ne ñii dañu am mérite am doole boo xam ne ku ko booleeg seen doole ñu dem te ñun dañuy ànd xam nga lu lu lu lu sonal AFP parce que dañu am un secretaire général qui un homme d'honneur qui un parole d'honneur lu mu wax dafay fexe nu mu munta def pour matal waxam waxam di méngoo ak jëfam jëfam di méngoo ak waxam c'est pourquoi ànd bu ñuy ànd ak ku mu mënta doon day nekk ànd nawle moo tax su ma déggee kuy wax yenn yi dama naan xanaa da nga fàtte en 2012 en 2000 le président Moustapha Niasse était le premier ministre du président Abdoulaye Wade mais bi mu ko oowee ne ko dama bëgg nga jël sa parti seeyal ko ci suma biir parti daf ne ko créé wu ma parti buy seey ci parti loolu moo indi seen rupture deful sax lu mat un an. à la primature. mais li ngeen def ak Macky ni koy est-ce que seeyal sax gënu ko. non ñun. parti bi nekk léthargie complètement non parti animé wu leen ko à la base kenn damu leen élection ba natt seen bopp. mais loolu kay moo ko seeyal benn la. mais Pierre parti bi bu nekkoon en léthargie. animé wuñu ko je pense que doo ma invité fii en tant que. responsable ah, parce que dafa am coow lu am parti bi moo tax ma invité la fii. coow fu muy am. gis nga lu fees rek tuuru. lu fees tuuru. c'est parce que le parti vit. parce que la base est en de se. remobiliser c'est pourquoi ñuy dégg AFP fu nekk ak ci lu ne te gis nga président Moustapha Niass daf ñuy faral di wax mu ne xale doo ko fekk mu ko muy sànni bant wala xeer ci garab boo xam ne ay garabu dég la wala acacia mais garab buy meññee rek la ñuy sànni xeer coow fu mu am rek xamal ne njëriñ moo fa am xamal ne liñ soxla la masse est là c'est pourquoi coow li di bëri ci AFP parce que c'est un parti d'avenir c'est un parti de jeunesse c'est c'est un parti de femme et c'est un parti d'espoir et moi je sais que incha allah ci kanam tuuti di ngeen xam dëgg dëgg dëgg lan mooy AFP. léegi boo doon natt boo doon évaluer seen compagnonnage ak euh, président Macky Sall depuis 2012 ban résultat la leen jox. waaw li may wax mooy ànd nawle lañu ànd ak président Moustapha Niass et ànd boobu aussi dañuy dafay baax ñu fàttali ne le président Moustapha Niass fait partie des membre fondateur de Benno Bokk Yaakaar beneen bi mooy euh, bi ñuy ànd ak moom en 2012 dañu ànd sans condition wax naa fi léegi ci français ma ne dañu mos a romb primature président nekk ci auto président Moustapha mu ne ma fii de dama bëggoon su ma gañe woon def ko juma boo xam ne marchand ambulant président de la république sireur euh, de chaussure raxaskatu oto ñëpp dajee fi communier ensemble julli ñaan yàlla Sénégal am jàmm ma ne ko mais pourtant président nit ñi ñu ngi wax ne wàdd day bàyyi yow ak Macky dem mi ne ma noo mu wax ma benn aaya bu ñuy wax xul xuwal malikul mulk euh, xam naa oustaz yi dinañ ko yeggali ne ma yàlla mooy fal ku ko neex mooy folli ku ko neex donc kooku gëm yàlla la àndal ci mbir mi mais ànd sans condition te loolu da ngeen koy wax rek mais bu ñu la joxee poste du ngeen bañ mais loolu kay mooy condition bi mooy poste bi. mais yow xam nga wóor na la ne président Moustapha Niass en 2013 nekkutoon ci liste euh, député yi. Ah, au niveau national waaw mais bañ ko woowee ne ko kaa ñu jox la présidence assemblée nationale. bañu ko parce que c' est un soldat nee naa la Jeune Afrique dafa titré woon ne Moustapha Niass un soldat au service de son peuple Moustapha Niass mën na mënul am na jot amul jot euh, wér na wérul. bu réew mi soxlaa moom pour moom dafa war a jug pour réew mi. dafa war a taxaw réew mi dese du ko dara. moo tax bu ne am na ko si réew moo tax du dese réew mi dara. moo tax fu réew mi soxlaa rek mu jug dégg nga ko tout récemment bi mu defee message d'adieu ne mu ngi dem retrait bi réew mi defee un appel les partenaire du Sénégal le Sénégal le président de la République ak confiance bi ñu am ci moom ak expertisem ak carnet d'adresse am ak. ak niveau d'homme d'État bi mu nekk biñ ne ko dañ lay def comme le haut représentant du président de la République dafa accepter parce que moom pour moom réew mi bu soxlaa moom amatul réew mi bu soxlaa amatul neen lu muy bëgg wala lu muy ut lu dul répondre à l'appel de ce pays léegi compagnonnage bi est-ce que kon satisfaire ngeen si yéen kontaan ngeen si bon lëkkaloo ki lëngoo bi ngeen lëngoo ak Macky li ma xam mooy entre le président Moustapha Niasse et président Macky Sall il y a aucun problème ces deux frères euh, dañuy diisoo ci lépp di waxtaan ci lépp bien vrai que ñun au niveau de la base ñu ngi ñu ngi on souffre parfois parce que bu fekkoon na ñi nekk ci base bi dimbale nañ ñi nekk ci kaw muy les leaders dinañ yaatal dinañ gën a ubbi dinañ metre à l'aise ki ñëw pour jàppale la du sa noon parfois même jox ko teraanga mu lekk yow avant ngay xalaat sa bopp yaa ngi dégg wax bi mais parfois li leen di nax dañ leen di li leen di nax waa waa APR dañ je dis pas yéen alliés yi du ma wax ñëpp hmm. du ma wax ñëpp mais la plupart xamuñ la degré de ce compagnonnage pourquoi parce que te loolu dafay sonal suñ kilifa yi ci kaw muy le président Moustapha Niasse le président euh, Macky Sall et la présidente Aminata Mbengue Ndiaye pour na citer que moi je pense que damay faral di wax ne euh, bu fekkee dañu bokk kër gi man su ma duggee ci néeg Pierre xàcc kenn ñëw indi suma néeg ne yokk naa duggaat ci beneen néeg xàcc ne indi keneen ne yokku naa pour man kër gi dara yokkuwu fa c'est le même nombre mais li ñu war a def mooy xeex bi ñun la ak ñu ci biti te du xeexu laneen lu dul ubbi suñ téléphone yi di wax ak ñoom yaatal suñu dënn ak suñu ginnaaw di leen boot mais jéem a fexe ku ci ne ñi yéene ko li nga mën li mu war a am jéem a uuti ay militants yoo xam ne duñu nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar mais dañuy nekk dans l'opposition ñun nag au niveau de la base je pense que li may wax man la concerné c'est pas le parti parce que parti bi buy wax wax naa ko léegi ci français ne am na voix autorisée un porte-parole qui va parler euh, ci décision parti bi mais le président Macky Sall su ma ko doon wax dinaa ko wax mu seetaat tuuti ak alliés yi parce que tamit baax na mu bàyyi leen xel sedd leen pour ñu gën ko mun a liggéey liggéeyal. dina jox doyul li muy liggéey. joxo leen fi ay poste ministre Moustapha Niass nekkoon fi président assemblée nationale DG ngeen am fi ay DG ay PCA. waaw xam nga AFP lan ngeen bëggaat encore xam nga AFP ñaari ministre la amoon. ngeen kaa xeeb. non xeebuñu dara parce que. am na allié yu mësul am ministre xam nga kiy xeeb mooy kiy laaj. am na allié yu mësul am ministre. non kiy xeeb mooy kuy laaj. waaye AFP mérité na sax am lu ëpp ñaari ministre en réalité. affaire daal gàttu ka quoi bu ngeen bu ngeen di séddoo. jamais j'ai jamais dit ça. Hmm. non man maay laaj. non du du gâteau. Hmm. parce que déggoo nee président Moustapha Niass bi muy ñëw daf ne danañ ànd sans condition au contraire moom moo ëndaale sax liy neexal ànd bi moom moo ëndaale luy neexal ànd bi mais li ma bëgg a wax mooy par exemple dama joxe léegi exemple ci français ne tey le responsable national de la jeunesse de l'AFP qui est mbay Mbaye je ne suis pas là pour faire, pour faire son avocat ou le défendre man ku ma xam-xam ne je libre nag mais c'est un exemple il est le responsable de la jeunesse de l'AFP il est le responsable national de la jeunesse de Benno Bokk Yaakaar tey Zator boobu amul dara. nekkoon fi député cinq ans. nekkoon fi député cinq ans. léegi loolu doyul warul dem bàyyi keneen ñëw kooku tamit. wane lu mu mën. non je dis pas que ñu exemple la bu ndaw boo xam ne pour vous dire que tey am na loo xam ne bu ñu ko renforcer woon xëñ na. liggéey bi mu war a liggéey ci benn bokk yaakaar bi dina ko mun a liggéey bu baax c'est pour vous dire que au niveau de l'AFP xeexuñu dara amoon nañ fa ay direction direction yooyu anañu ministère yooyu anañu tey on se retrouve ak benn ministère xeebuñu ko xeebuñ non xeebuñu ko xeebuñu ko mais man Babacar Sadia Soxna su ma gisoon le président Macky Sall dinaa ko wax ne ko nit nag bu la joxee lépp fexeel ba bu añ jotee nga ne ko kaay toog ñu añ te du moom moo leen ko sant xëy na sax c'est lui qui gère la presse pour que muy nekk à la une revue de presse. gérer la presse loolu loolu nga foofu. bon je veux dire que am na contact yu baax am non non non non am na contact yu baax ak hmm. presse bi mun na tey jël inf information envoyé ko tel journaliste boo xam ne xëñ na ka nekk ci au fin fond de Kaolack euh, def benn déclaration xamul fan lay jaar pour yóbbu ko euh, ba presse bi mun ti jot. loolu nga tuddee gérer la presse. bon question de relation la hmm. xaw ma nag yow lan nga dégg. waaw non mais gérer la presse boo ko déggee. mooy waaw non non non. mais dañoo corrompre presse. non non non jamais presse. Hmm. presse presse Pierre yow. Hmm. <laughs> doo ku ñuy corrompre. ko doon ko doon jógee nga Walf bu yàgg ba am sa tele waaw parce que tey kuy kilifa ci réew mi jaar na fii ci sa kanam. nga def ak moom émission au moment au moom moo ko soxla woon du woo ku ñuy corrompre du tamit ñëpp lañ tout du la ñëpp a corruptible waaw léegi chinois yi dañu ne nit bu lay indiquer jant bi na lee wala weer bi au lieu ngay xool baaraam bi mais da nga war a xool weer bi ci moom euh, ci ci boppam. loolu est-ce que loolu tam waruñu waru leen ko yéen appliquer le fait ñu naan euh, war a nekk candidat. <laughs> Pierre il faut il faut il faut a nekk candidat le a nekk candidat. au lieu ngeen xool est-ce que deux pëli trois tonnes ñoo koy wax mais est-ce que du message bi bu ñu leen bëgg bi ñu leen jagleel yéen message boobu ngeen war a décrypter. waaw pour man un candidat discipliné bu amee lu muy wax ci partem daf koy wax ci biir parti bi mais du ko wax ci mbedd mi le linge sale se lève se lave lave en famille. Mm-hmm. donc pour man euh, li may wax mooy toujours tey j'ai l'habitude de le dire man mooy euh, démarche bi mu jël baaxul. na ci génn. mais est-ce que démocratie interne boobu am na seen parti yéen tamit. démocratie interne boobu am ci moo tax depuis des années président Moustapha Niasse mu ngi wax ne il est prêt pour céder la place à la jeunesse et les accompagner te nag moom ci boppam nee na AFP am na plus de quatre cent cadres yoo xam ne ku ci nekk mun na yore partie bi ku ci nekk est ministrable mais mun na ñoom ñëpp nañu jéem a fexe. ba nga xam ne nii dinañ dem liggéey ci base bi pour préparer wu congrès am ñu jël jébbal koy parce que il n'est plus candidat te congrès yi mos am yëpp te nag bul fàtte ne AFP rek mooy def congrès ci parti politique yi am fii. ah yéen seen instance régulière yi fonctionné wuñu bu baax a baax. ñu ngi <laughs> bu baax a baax. Hmm. bu baax a baax. léegi parti bi dafa war a am candidat 2024 wala déet si parti bi tey le président Macky Sall et la coalition des leaders des leaders dañu désigner le président Moustapha Niasse comme euh, ku war a réformer waat la coalition ñu ngi ci coalition benn Bokk Yaakaar ñu ngi liggéey on est comptable de li président Macky Sall di def on l'assume. Ah ouais. et on l'assume. Mm. mais Pierre. Euh, bés bu waxee candidature jotee la voix autorisée du parti qui la porte-parole et le secrétariat exécutif dinañ def une déclaration parce que ku xam président Moustapha Niass xam ne du nit buy ragal wax position am di nit buy ragal aussi jël décision. troisième mandat yéen d'accord ngeen si yéen AFP. li may wax rek toujours mooy euh, l'AFP est un parti de cadre est un parti de gouvernement. Moustapha Niass est un homme d'État et ñi mu formé formation politique bi loolu lañ ci gis mooy troisième mandat quatrième mandat dixième mandat pour man candidature du ci mbedd lañ koy régler du ci plateau télé lañ koy régler mais bu fekkee ne étant républicain war nañ respecter les institutions ba nga xam ne ni xam nañ ne c'est le conseil constitutionnel moom moo am abilité wax ci candidature nit mais mandat moom c'est le peuple peuple bi ñoom ñoo koy jox ki nga xam ne moom lañ yaakaar. te gis lañ ne nag peuple bi ñu ngi tàcc bu baax la président Macky Sall ñu ngi koy accueillir un peu partout. parce qu'il est en train de travailler. jërëjëf Babacar Sadia Soxna responsable AFP fële ca Kaolack nga jiite fa commission euh, hydraulique assainissement euh, ci euh, ca conseil départemental bu Kaolack ñu ngi lay gërëm bu baax. Uh, Pierre maa ngi lay gërëm di la sant di wax rek ne boo ma mayee tuuti ma lancer un message boo xam ne j'ai l'habitude di ko tëjee sumay émission mooy Sénégal gi ñun ñëpp ñoo ko bokk et di wax ne politique euh, bu la naree yàqal mbokk bàyyil politique jàpp mbokk politique bu la naree yàqal xarit bàyyil politique jàpp xarit jarul ñuy saaga wante jarul ñuy xuloo jarul ñuy xeex ba jarul ñuy yàq li nga xam ne ay édifice la yoo xam ne nii réew mee ko moom muy opposition comme le pouvoir kenn ëppalewu ci moromam luñ yàq